yéen ñaar jeex na nii kon. lan loolu kañ la. et eh, kadi xaral ma lan moom ndax mu gën a gaaw. Jean Paul su doxul yow ak assistant xamal ni ànd neex na. waaye koo bàyyi mu dem ak mbaggam. Ah, ci génne nga ma ci xamoo sax waaw mu nag. ngi nii <laughs> Sophie dama war a ranger ambulance bi doo xool ndax lépp jaar na yoon. ni kii meram Kadiatou mu mujjee nga seetaan série bi ma la doon wax jaar na démb ci guddi. xooluma ko maa ngi doon sport. sami 15 15 dalal jàmm. Mhm. baax na maa ngi lay paas médecin bi benn jigéen la bu am mettitu biir bu tar. allo soxna waaw. Aminata. soxna si. looy def fii. sama yaram a neexul. waaw. dox sax mënuma. su ma doon wàññi benn ba fukk. xool ma fay bi ngay mhm. yëg. sama gis-gis leewu. Fadi xanaa gisoon ne am na ku may waxal nii da waroon woote. xam nga fii hôpital. waaw ñun duñu faj kenn fii ci sami. soxna si waaye ñun. ñooy seen dëkkandoo fii. Hmm. waaw. yow dafa mel ni sa làmmiñ bi dafa xaw a damm. Aminata. yow ndax da ngay jëfandikoo ay diwu xeesal diwu xeesal loolu baaxul ci sa wérgu yaram rawatina ci sa tension allo docteur Diop gaawal gaaw ñëwaat fii Aminata mi ñu dendal mi ngi fii di la dafa war a dem hôpital mel ni ko am début AVC teg ci amaale hypertension baax Sophie mun naa wax ak yow tuuti dafa mel ni danga ma mere te xaw ma lu tax su dee dafa am lenn lu ma la def lu la metti maa ngi jégalu dégg nga. man xaw ma dara ci li ngay wax GPM fii du léegi lan moo tax. man daal aw ma chance. damaa waroon dem concert ak sama benn xarit. waaye nee na dematul. Euh, du ñu ànd Sophie waaye bu la neexee nga toog ah. proposition la rek. jarul sonn aw ma jot àndal ak JP. baax na. JP looy doyee affiche yi di wax ci mbirum xeesal ah fële de laa leen jëlee sànk bëggoon lañ taf ci maternité ba ak mbedd waxtaangaay yi xalaat bu rafet la kenn du faral di wax ci musiba yi muy jur ci wàllu hypertension lu leer doo ñëw jële ma sama tension dama xaw a stressé yow sa wax nga ko sànk euh, waaw ñëwal su dee mooy dalal sa xel toogal ni jox ma sa loxo acca wala treize huit baax na jërëjëf maa ngi lay bàyyi nga liggéey xaaral kat yi yow moo xew kadi kadi kadi kadi eh xaar ma yow kadi yee eh. lu tax nga jékki-jékki dem lu jot tey gis na li daal Aminata dama cee gis sama bopp damaa am hypertension man tamit yow doo lekk lu niin doo xorom ba mu saf suukaro tamit mu saf yaa ngi naan ñaari litre ndox doo jël ay bouillon lan ngay jël benn boisson alcoolisée wala benn sucré bés bu nekk yaa ngi lekk ak fruits ak légumes di tàggat sa yaram saa su ne dollu ci di dox genewal waxtu bés bu jot. Hmm? ah sport moo dee sama xol. fi nga jàpp foofu la léppay baax te yow xam nga ko lu tax ñëwoo ñu waxtaan si bopp ba léegi. dama tàmm di gérer sama bopp rek. ginnaaw liggéey am na ñoo ci mën a waxtaan jaajëf bi nga ñëwee jàpp loolu du dara def ma dara nii. yow waxoo moo da nga am ji ah bàyyi mu sedd. <laughs> loo si jublu woon invité Sophie. <laughs> sa waay yow. ah loolu ñëpp lay dala ah. man mii sax daloon na ma. bi ma ko tegee ne ba léegi seen muy doxalee ak man. yow sax sóoraale na ma. waaye man su taxawee rek damay jaxasoo ci saa si. ma ni xoolal foog nga gëm sa bopp gën a direct noonu la demee woon mag assistant bu ñuy door soo xamoo li ma daj. oh <laughs> na ngay noppi rek <laughs> saa waaye munoo sax xam. ayca bi mu pare. oui ñu taf bi ci dem. jaajëf JP. def sama gars yi man la tuuti liñ leen di digal tey mooy soo leen dawee ba pare bu leen fàtte mukk étiré wu dina tax ba doo leen am gaañu gaañu wala yaram buy metti cinq laaj rek de tous teg si ay par rek suñu ñaari parents rek. soo defaraat sa blog bi si ay jigéen ñu la xaw mag mooy gën a original dina la yokkal ay laaj teg si xam naa ko xam ne loolu dina ko neex. lu cool nga wax nii waaye blog bi sama bébé la fasuma ko yéene partagé rawatina ku ma xamul. waaw waaye man xam naa ko euh, moom li mu soxla mooy ubbeeku wante noo ko bëggee rek. lu jëm ci ubbeeku yëngal yi am assistant ñëw rek ak waa kër gi nee na xamatuma lu may def loolu du dara dina ci génnaat après eh Adam jàpp ci rek bu ko wax waa kër gi dégg bëgguma ñu jaxasoo